général Jean Baptiste Tine daa waroon a dem retraite fii ak ñetti weer septembre waaye président de la république mujjul mënatee xaar loolu néew na lool nag lu muy am ci histoire gendarmerie ci xibaar yi ñu ci jot bëri na mbir yu tax président de la république gaawal wàcce gim wàcce au commandant gendarmerie bokk ci ñaari këram yi nga xam ni song nañ leen genn nga nekk Fatick geneen nga nekk Ndouloumaa ji te gendarmerie moo leen war a wattu rax ci dolli mbiri nervi yi nga xam ni ñoo topp président de la république au bi wax na lim ci xalaat waruñoo dem ci tournée bi mujjantal bi ñu gis leen ñu bokk ci ba pare nit ñëpp ñaawlu ko leneen loo xam ne bokk na ci li sànq général bi mooy ñetti junniy gendarme volontaire yi nga xam ni ay contractuel lañ war a doon ñu war leen a général bi dafa ne woon nag lépp dañ koy jaarale ci ni ñuy recruter ay gendarme te fekk booba ci biir parti bi waa APR am na ñoo xam ne dañu yaakaar ne ñoom itam war nañ cee am ay quota leneen lu ci dolliku mooy li yóbbu woon directeur généralu police bi émeute ya woon ci biñ wooloo Ousmane Sonko ci mbiri Adji Sarr mu wane woon ni kaaraange gi fàttul niñ ko foogee dem gi général gi dem ni mu dajee ak dàq gi ñu dàq capitaine Touré ñu xam xamal ni général bi musul woona bëgg ñu sanctionné ko sanction yu metti yi ci taarixu gendarmerie wu Sénégal nag bi mooy ñaareelu yoon au commandant gendarmerie dem ba jub à la traité ñu daal di koy wàcce général Pathé bi Ablaye Wade di soog a ñëw ci jamonoy alternance beneen bi ci armée bi la amee woon muy général Pape Khalil Fall ñetti weer ko dese woon Ablaye Wade moom itam dindi ko ndax généralu Guinée Bissau ba Tagma Nawey moo dàqoon Salif Sadio sàkku ci Sénégal ndimbal xamuñu nu armée bi def bañ ni Salif Sadio jaar na ci géej gi bay yegg bi palug Moussa Fall gii nag ñu bëri ñu ko déggee démb bett na leen jaaxal leen ñu ne lii tax itam muy gën a metti ci général bi ñu wàccee mooy président de la république defewu ko biroom Ndakaaru ci région la ko fekk te loolu néew na lu muy muy loolu ñu def ci décret bi fee à